dema ñaanal sama jaajaay jaajaay sama jaajaay wéet julli di ñaan xol bi fees mënatuma ko denc jéey dinaa ko wax mu fés bu dee way gawlo la war maay sama gawlo baay

Nossa, é era... bu dee way la war man maay sama gawlo baay na xel bi waaw teewaay bi euh, comme niñ ko waxee euh, taekwondo fii ci caaya yaakaar naa képp ku ci yëngal la nga yëgal ma ko ndax euh, yàlla moo dogal ci sama pexe la ñëwee fii caaya waaw maître Ndaw moom euh, vraiment ceinture noire bi lu mu mérito la ci pratique bi mu koy def ci jikkoom ci ak oyofam ak ndalam euh, te am na nu mu doon demee bu doon sama genre bi tey day ñëw liñ ko fi defloo sax du ko def euh, ndax diis parce que vraiment moom la nit loo ko am ne nii daal vraiment toujours li ma koy wax rek sama nijaay la sama rakk la suma xarit la suma maître la kon dama koy ñaanal ceinture bi jikko vraiment mu dem ba yor ay dani dani dan yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def jaajëhe koy de jeg yome passement xane no examine kalef examiner kam mbiyogo passement kon vraiment in way moslu xano a paaxu daal te fekk lo xano a paax a paax a paax aussi lancer ale message leng donc caajaxe toujours o le laya parent ke nganjo xa caajaxe ka liggéeyo waaw waage ñak comme roga dogalay kam defo ten arne angor gol he ten arni il faut que mo moƴa so den mo jandam tren a paaxu pour que gol lo ten nda vraiment dal a doya war dal parce que deta no wajan wajan bes na ro xane ka jeg wa an yee ngarero o fi'angaan koy en général aussi ka jeg ga ne kay ka na na dem den se dal xene ne ngor gol paax ha pa pa pa dal no ndam tren na paaxu parce que o ɓiyo rimangaan ka jeg no ke ka refna na bugin vraiment ko puusante vraiment contane na met ndaw xane andoona yee te ku mboogu yasam sen tore mali na pahu ah, ka ref dan dan dan dan dal in way ñaano ten rogo yal he waguna ya yasam ka an na den daal no na paha paha paha a paax a paax a paax jooka njal a rek contente ah, vraiment depuis ay at presque mu ngi mel ni ñun ñaar mom ay seex lañ ci bi eh, depuis at ñu nekk di entraîner ma gis engagement am ak courage bu am donc bu demee ba tey takal sentir noar, ceinture noire suñu bi day nekk loo xamante lu ñuy Ah, di ñaanal xalé yi doon pass itam ñoom itam ñu dem bu ñu fekke eh, seeni ki fuñ leen ay takalé ay tour noir ñoom itam kon c'est moy yoon bi mu jër rek bu mu ko teggi wàccee na bopam ma ak eh, am amal na ñep njërmaande dal waaw yoon bi mu jël ni dal bu mu ko teggi na ci gëna continuer ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla woyofal ñep di ñaan ci autorité yi ñu gëna jappalé xalé yi ndax xalé yi am nañ engagement am nañ bëgg-bëgg

loolu lépp dafa dajale ci moom ba nga xam ne nii soo ko gisee rek euh, art martial ngay gis ci moom parce que ceinture bi daf ko mérito tey ceinture noire bi mu def ni bi muy bi muy takk ni tey daf ko liggéey daf ko xaar yàkkamtiwu ko te loolu rek moo ci am solo li ñuy wax ceinture bi takk ko am na solo mais liggéey ko ba mu mokk mu ëpp solo liggéey bi du ci tànk yi du ci loxo yi kese mais ci bopp bi la te liggéey na ko ci bopp bi liggéey na ko ci tànk yi liggéey na ko ci loxo yi euh, ñu ngi koy félicité bu baax a baax di ñaan tey ni ñu demee ba muy takk ceinture mu dem ba yor saalam suba forme ay ay champion di leen takkal ceinture ñu koy teewe nii te am nañ ci yaakaar bu baax a baax parce que loolu lépp daje na ci moom ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax conseil bi ñu koy jox mu bañ a changé mu bañ a changé ci lim nekk mu nekk ci parce que booy wër ku ku am coloré da boo ñëwee ci met ndaw da nga fekk boy wut ku ku deggu bo ñewé ci met ndaw dang ko fay fekk bo ñewé ci ku mëna jappalé moromam ci lim nekk mu avancer ci bo ñewé dang koy fekk ci met ndaw euh, kon lim koy wax rek moy lim nekk mu bañ ko mu bañ ci changer na gëna pousse ci kanam te xamné ne ñëw moo mm, man mom suma xarit la suma xarit la Baxdaat mo ñu bolé mais tey dem nañ ba ba beneen relation bo xamné ni donatul doonatul art martial mais mais mais dafa bok ci suma famille euh dañuy tok di waxtaan dañuy seetante dañuy demalante dañuy dikkalante lu may dugg wala lu muy dugg ñu ciy partagé li ma wax dal moy nit ku baax la di gërëm soxnaam bu baaxa baax Zahra ami la famille ablay ñep ñu ngi leen di gërëm daal macha allah. boo métti ndaw soko don doon qualifié terme bo mënti utiliser dina xaw compliqué. ndax euh, xam naa bon man li may njëkk première chose bi may njëkk wax mooy taalibi Cheikh ku ne taalibi seex rek wax nga lépp donc taalibi Cheikh laa ko mën a mën a njëkk qualifié à part loolu il est toujours social ouvert et toujours dégonneur bon xanaa mbégte di xam ni lu mu bëgg la lu mu bëgg la mu yàgg wut la di ñaan tamit su amoon lu ëpp seen tournoi di ko ñaanam am ko euh, xanaa di ko wax mu bàyyi toon joolaay waaw donc <laughs> bon comme comme comme service la rek euh, sport là, euh, na gën performant parce que sport moom du doy na gën performant. ah di féliciter aussi sama collègue arbitre bi di wax ni vraiment taekwondo ni la quoi c'est la famille beneen bi mooy taekwondo armé. la comme nuñ koy waxee rek maître yi dañ naan soo amee première daan yaa ngi doog commencer taekwondo di ko wax félicitation et bonne continuation. donc lii yaakaar na nit sañu ko ko def kon lii day montrer que ni rek taekwondo du mag wala xale wala lii famille la quoi famille boo xam ne lii si ëpp mooy dañuy def euh, partie art ak partie sport donc partie bi mu nekk nii dafay nekk partie art parce que lii ko amul doo doo ko def kon vraiment ñu ngi lay remercier di la ñaanal yàlla na ci ay daan yu bëree bëree topp di am contentement aussi di ñëwaat fii comme examinateur di wax ni vraiment maître ñi ngi liggéey liggéey bu rafet te bu ñu xoolee toogaay bi xam ne taekwondo c'est la famille parce que jamono xat na itte yi bëri na mais terewul yeneen yi fi yor ay club sax dañuy ñëw assister passage bi bàyyi lépp lu ñu def kon ñu xam ni affaire yi c'est la famille quoi ñu ñaan yàlla suñu borom yàlla na leen sàmm ba lu ngeen bugg a def si xale yi yàlla ngeen ci am lu kawe seen jot donc xam naa ni parents yi duñu leen mun a fay mais yàlla leen ko yàlla fay ci seen njaboot. dinaa bi ñu sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi jaajëfal képp ku fi teew di jiital si nuyoo beeg sant beeg gërëm bi yëpp suñu président d'honneur ñu koy wax euh, maître Thioub ñu gën euh, mu tudd Mamadou Diouf Thioub mais ñu ko gën a xam ci Thioub moom moroomu ñëpp la ñëpp kenn du wax tonton kenn du wax papa ñëpp Thioub rek la ñuy wax. <laughs> waaw ah, oyofam moo demee noonu ak euh, lewetaayam ak euh, nangoom euh, di gërëm Ibrahima Ibou Diouf mi doon wax sànq moom depuis ñu ànd ba léegi changé wut daal ni ma koy waxee depuis ma nekk ak moom fii ceinture vert ba léegi ni mu meloon ba léegi noonu la mel voilà dem nañ ba salle bi des ñaari nit muy maag moom ay treize mille 2014 mais ba leg bo gisee li fi am li lepp ñak baay gëm bopam té fi mu té mo waral tay gis nga indi na fi ay élève lu mat 24 élèves té lepp benn salle bi la muy Baxdaat mo leen yor fële côté Dakar ga di leen entraîner met ba moom ubil nek fuuj récemment ubil nañ ko fofu salle mo nga fa ak élèves yi di amna fa benn ben benn euh, élève majorité bu bare ma sha allah mo ngi leen di tété bu baax yenn saa ñu ñëw fii seet si ñu yenn saa ñu dem foofu seet si leen voilà moom tam ba ya, mu fi ñëwee ba léegi ñu ngi ànd di liggéey liggéey bu rafet rafet rafet voilà ñu ngi sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla élèves yi mu le mu tàmbale foofu yàlla eh, teg ci loxo ba ñu am pa lépp loo xam ne yaakaar nañ ko fa rek yàlla na ko fa yàlla génne di gërëm eh, met am met am moom da fi ñëw 2016 su ma juumut depuis boobu lañ xamante mu fini par ñuy partagé lépp sax dama daan salle un mois deux mois moom mu nekk fi élève bi di entraîné ma ko defal la neex taekwondo noonu lay doxe taekwondo moom boo xasee ba diriger yaa diriger li nga neex ngay def la dem nañ ba sax ni man mais rek comme li Adama wax examinateur taekwondo c'est la famille taekwondo day gëna ubbi day gëna rataxal c'est la famille ñu koy sant mom ñu koy gërëm bu baax bo xolé salbe mu nek tay këngam fi la joggé muy baxdaat bi monam mën na né sal yi nek ci zone bi yépp baxdaat bi lañ joggé voilà ku ci nek ñu détacher la nga dem fenn nek sa bop nga séré té non lay démé ñu koy ñaanal nak suñu waa nga xamné tay mention spéciale muy maître Ndaw ablay Ndaw la tuddu mais ñu ko gëna xam ci maître Ndaw moom euh, xam naa bu présenté woon ak liñ ko fi def yëpp dañ naan déedéet mënut nekk mais technicien la ingénieur la moom oyofaayam moo ko indi fi mu nekk. ci wàllum liggéeyam Macky Sall le président de la République décoré na ko 2019 meilleur technicien ingénieur du Sénégal kon kii du ku ndaw ñun nag xëj na xamuñu ko mais ci oyofaayam ba léegi moom ma njëkk a dugg si taekwondo. moom euh, moo ngi duggu 2001 man 2003 ñun ñaar ñu bokk ben salle Thiès muy jafle taekwondo mu nek ngent comme ñaari salle comme fi ni mu amé salle rek bakko bo feulé am salle moom mu nek ngent man ma nek taaxi kaw lo tax miinante wuñ won mais dañ dan def chaque mois ñu dajé def ensemblement euh, rassemblement def entraînement général mais taxul won ñu miinante mais nak bi ñibisé tiajay ak ceinture rouge fekk man ma pakk euh, première dan mu ñëw di wër di saal di wër fon la mën a entraîner ma mett ndóof ndóof tailleur mi fi toogoon léegi moo ko indi ba suñu kër présenté ma ko ñu waxtaan gindi ku nekk xam nañ ne kat ñun ñoo bokkoon saal mais xamante wuñu woon mu ñëw nag bootuwaat sama ginnaaw ndax taekwondo noonu lay doxe sa papa sax bu inscrire bu ñëwee élève la day def comme élève mu ñëw nangu jàpp teew bàyyi lu ne nag moo ngi ca mu ci arbitrage bi mu ci pumse bi mu ci lu tudde sax démonstration bi lepp lepp lepp luy facette taekwondo rek da ci laal parce que amna lu mu bëgg man xamna ko ëlëk ci biir bo né ceinture noire la ñu né buñ la laajé ceinture noire nga mëna wax buñ la waajee ceinture noire nga mëna woné mais ceinture noire du ceinture du lamé mo xamna lu mu bëgg té ñu ngi koy ñaanal ëlëk ci biir mu dem ba yor salu bopam diko diriger bopam yor ay élèves yi dem ba fay ko bor bi te xam naa li ñu lebal moom ñun mënuñu ko fay waaw ci mbaax ci dal ci teraanga ci yar waaw ni di doxee ni ko met am du waxee léegi moom danga koy xool gis ko ci moom am na dal am na yar am na teggin te mag la moo ñu mag fuuf nag waaw moo ñu mag fuuf mais loolu lépp da koo teg fële ñëw rek ne maay seen taalibe waaw taalibe laay doon taalibe laa voilà ñu ngi koy remercier ñu ngi koy sant bu baax si ceinture bi yàlla na ko jik yàlla na doon ay dani dani dani dan xéewal yu bëri ak euh, makkaama daraja yu bëri tegu si voilà loolu daal laa xamoon lu ma mën a seede ci Maître ndaw euh, tey nag doonoon bis boo xam ne gannaaw bi ma jàllee premier dan ñu ma doon euh, takkal ceinture noire tombeek passage de grade bi nga xamante ni moom la baax Taekwondo organisé tey jii fii fi ci euh art martial nak moy li li moy art martial art martial euh liñ nek ni moy ay mak ak ay ndaw ay jigen ak i góor yu dajé ngir tagat sen yaram te teg ko ci organisation bo xamanteni respect koy lal lolay art martial euh, katan bo mën di am euh, am am bo mën di am xam-xam bo mën am âge bo mën am boo ñëwee ci respect rek ngay tege nga am ay maîtres yu jiitu euh, nga topp seen ginnaaw ci loolu nag lañ mës a nekkit euh, man maa ngi dugg ci taekwondo en deux mille en jot naa jaar ci ay salles yu xaw a bari tuuti nag ndax maa ngi commencé lycée Lamine Gueye mais diggante deux mille 2001 ba mille 2004 yàlla moo dogal mosuma takk ceinture ndax jamono moom amoon lu ma mën a passé garab dama doon entraîner rek bu passé jotee ma daal di ma daal di redoubler. mais 2004 nag ci laa ci laa commencé commencé takk ceinture 2004 ba 2006 ci laa takk rouge diggante 2006 nag ba fi may wax ak yow yaakaar na at yi bëri nañ excès de 17 ans sax boo léegi maa ngi ci rouge yi mosuma koo tekki ndax comme ni ko maître waxee rek noir moom boo koy takk ñëpp dañoo war a xam ne ceinture noir nga te saa yu ma natee sam bopp rek damay xeeb li ma doon ma ne naa continuer waat ñoragul def naa ko ba 15 ans ma bi ma defee 15 ans ci ceinture nag ci laa ne jot na ma dem defi ma dem defi passage de grade gannaaw passage bobu nak euh, ma ma dem premier gap, bi mo nek deuxième bi pour ma dem ceinture noire euh ñuma don takal tay ceinture may sante nak ñi fi tew di kontan lol, di wax parents yi nak ah bu ken tardé ci indi sa dom ñu former len ci li nga xamanteni art martial nañ leen ci former ndax yar la teggin la formation la bo xamné sans limite ku ci indi sa doom doo doo am regret doo ko doo ko doo ko rëccu waaw xanaa kontaan tey moom wax dëgg fa yàlla kontaan puisque xam nga ne lu ëpp ñaar fukki at nit nekk ko ci benn mbir euh, formation bu nekk def naa ko ci def naa ay formation garde rapproché def naa arbitrage def naa formation yu bari ci lu jëm ci art martial mais finalité bi daal moo nekkoon di tey kon su ma demee tey ba bis bi ñëw euh, ay maître yu mag ñëw teew fii ko mel ne maître aadama Diop bii nga xam ne ñoo bokk arbitrage fële ca ca Thiès euh, di suñu kilifa euh, maître Seck ñëw teew euh, yor ay élèves yor saal maître Ibou Diouf ñëw teew yor ay élèves yor saal maître Ndiawar Dieye kenn waxaale ko moom moo nekk kilifa ci saal bi ñu nekk maître Ba gis nga ko moom moo nekk fuuj sama joolaa bi nga xam fi ma toll di ko tooñ sama kal la ndeysaan moom su ma gisee damay kontaan damay fàttaliku lu bari ndax bi muy dugg ci art martial mag la mais da ko bëgg di ko ñefe am ci jom ñu ko wax met jeeju ba tey mu ngi ceinture rouge loolu loolu di exemple aussi kon su ma ñëwee tey ñu may takkal ceinture ñoom ñëpp ñu teew fi tey ah damay damay am contentement bu rëy rëy xam ne aussi bis bi jot na comme jot na nag fekke nañ ko te yàlla may ñu wërgu yaram ba bañ teewee ko kooku sentiment bu rëy gënu ko sentiment gënu ko rëy quoi. waaw élèves conseil ma leen jox rek lu simple la. mooy bëgg-bëgg bu lalu ci respe loolu mooy li nga xamante ni ku ci nekk ak loo mun di nekk da nga réussir bëgg-bëgg bu lalu ci respe loo am am respect ci art te bëgg ko lu mu yàgg-yàgg da ngay gunge rek da ngay lu mu yàgg-yàgg da ngay bàyyi xam nga loo ko bëgg-bëgg-bëgg te amoo respect it boo bàyyiwul itam nit ñi ñoo la fi jëlee ndax art martial moom dafa am ay ay règle muy dox euh, boo xasee ba teg sa tànk ci buntu yi moom da nga koy respecté àlla kulli àll da nga koy ci nii wala nga respecté ci nee kon nag soo ko bëggee nga nga nga lal ko ci respe mun nga cee génn waaw loolu daal laa am loo xamante ni moom laa jox conseil ci élèves yi nañ ko bëgg te buñ ko bëggee it nañ ko lal ci respect. waaw sama dernier kàddu rek day doon cant ak ngërëm cant ak ndax euh, tey wax dëgg fa yàlla waa seen o séntu moon ñëw teew fi tey te ñu ngi nii dañoo dañu yëg ne damay takk sénti rek lañ ma woo ay midi ne ma ñu ngi ci yoon wi ñëw ngir teewe ko euh, Souleymane Sow di suñu daanaka pàppale ci ñun di ànd ak ñun guddeeg bëccëg ñëw teew bis bi Keekuta Bodian sama collègue la mooy sama binom ñoo bokk ñoo bokk liggéey bi Assane Ndiaye aussi di si ñun di ko oyof ku baax sax ah, ñoom ñëpp ñu ñu def délégation ñoo teewee ko loolu dama ci am contentement bu rëy rëy rëy waaw di kontaan nag ci madame. waaw ah, mais kontaan lool ci ñëpp ñu fi teew macha allah.